bisimila daleen nag jàmm ci seen bi ngeen taamul seen bopp coowal candidature Bassirou Diomaye fay ba tey fayegul lu Quotidien ne la ko waral mooy yëf ya daa bëri yi jaaxa bëri itam coow ndax yéene bi nee na ca seeni farandoo Bassirou Diomaye Faye du ñëpp ko fa bëgg ñépp itam ànduñu ci tànneef gi yéene bi nee na leneen liy ñuul ci soow mi mooy Bassirou Diomaye fay dooleem ci wàllu politique taxu ko demee noona loola yëpp nag am lanteem ak yoon ñëw dolleeku ci Sud Quotidien ne moo taxit coow li bari na tànneef gi Ousmane Sonko ki ñooñam def ci Bassirou Diomaye Faye yéene kaay bi nee na jur na jeex Cheikh Diakha jur na itam werante gu rëy rëy ba ci boroom xam-xam ci wàll politique maanaam analyste yi yéeni kaay bi nee bu weesoo militant yeeg ndax danañ ca toppam déet mbiram yoon itam tax na candidature Bassirou Diomaye Faye gi ak yeneen liet naa yi Ousmane yi janok article bu code électoral journal baa ngay joxoñ ne Pastef parti la bu ju tas kon ñooña mënuñoo am candidat buñ sukkandikoo ci code électoral bi njagasi la ca source aanaan bu ngeen leer na ni parti bu ñu tas mënuloo am candidat article 57 bu code électoral kon seppi na Basirou Faye tegee ne mënta doon candidat indépendant waaye njaga nee na du article 81 17 bu 6 mai 1981 mi jëm ci parti politique yi te ñu soppi ka du itam code des obligations civiles et commerciales wala code électoral ñoo wax fenn ne kenn mënta doon candidat ci élection njaga si la nekkoon la ci am solo mooy na ko coalition ngemba coalition ba nag njaga nee na lum gàtt-gàtt na ca ñaari parti moom bokkul ci élection yi waaye daa mel ni mooy campagne campagne googa muy campagne nag Walf Quotidien daf caa gis ne Ba Amadou Ba mooma mu tànn a na fan jëm ak ñun na ñaari inspecteur a janoo mu ñu bari buru yépiste yi yeewu itam ne am na ci ci mbetteel gu rëy direct news mel ni ku naan ba tey yëfi daa mel ni pënd bi wureegu ci de yéenekaay ba daa xëy di laaj ndax du Guy Marius Sagna mi mooy bot secrétu Ousmane Sonko maanaam li Sonko nar a yàq mbaa du Guy Marius Sagna baa ngay fàttali jafe-jafe yi Bassirou Diomaye Faye mën a am jàpp ne kon candidature am bi ak parrainage ñu koy wutal naxee mbaay képp la journal bayet nee na Pastef am na député yu doy ngiy parrainé Guy Marius Sagna Pastef mooma juróomi nit sokkee ko woon nañ fa wuute ji ay fiche de parrainage ñooña it yéenekaay bi nee na Guy Marius Sagna ca la bokk te Guy Marius Sagna mooma direct news nee na moom mooy candidat wu Ousmane Sonko Ousmane mi quotidien dolli ci it ne a xañ réew mi jàmm ci saw yoon Macky it nee na force doit rester à la loi moom Macky ca Dakar Presse ma ngay wax wéetaay gi njiitu réew di wéet bu jafe-jafe amee ci la mandat it ma ngay wax ci xuloo yaak rayante yaak worante yay am ci nguur ca waxtu woo wala nu l'observateur di wax lu yàq diggante Macky Sall ak Atepa journal bi joxoñ demande d'audience bu mujjut fenn maanaam Atépa sàkk woon na Macky Sall dalal ko mu tànxam lu ko communiqué baak meru njiitu réew ma nag toftalu ca l'observateur indi cay leeral le témoin naan ñu li leer daal moom mooy Ousmane Sonko moom fi mu ne ci xeexu politique gu saf sàpp la nekk gannaaw ba melee ni ku ñàkk xeex bi ci wàllu yoon le témoin mel ni it ku naan ñu candee la xeex bam ne woon ak Ousmane Sonko mim lankoon a jox fiche de parrainage daa mel ni moo ca am ndam yéenekaay bi nee na ñépp songu nan ko candee la dégg na fi lu ne ci bañ gi mu bañ a jox mandataire Ousmane Sonko fiche de parrainage parrainage waaye directeur général des élections fi mu ne mën naa teg lay tànkam tàqamti ku ndam li mu am ci kanam yoon ci kaw Ousmane Sonko ak ñooña doon ko xarab xarab gun jàpp ne da koo def ay tijaan tooñ leen yëngal seen ngëm-ngëm jaare ko ci xarala yu bees yi moo tax oustaz Oumar Sall libération ne mi ngi ci mandat de dépôt kaso la fanaan bi yéene kaay bi ne benn fan ci weeru décembre la nu koy àtte ca flagrant délit kon instruction ban waxoon mujjee nañ caa génn Pape Sané bu Walf moom génnagul ci mball gi ndax libération nee na tey lay janoo ak doyen des juges Amadou Ba procureur mu libéré ko def ko ci contrôle judiciaire source a nee na ambassade bu France ci Sénégal moo naqar lu teg gi ñu teg loxo Amadou Ba ba nuppi ne leen jaarut yoon yéene kaay bi ne la ko waral nag mooy Amadou Ba mi dub sénégalais dong ndax dafa amit nationalité bu France yéene kaay bi dolli ca ne ay doomam sax foofa lanu dëkk ndax fa lan juddoo faala fleur moom jugagul ci jafe-jafe ndax yéene kaay yu bari nee nu gannaaw ba mu génnee kaso Dakar naaf ga muy liggéeyee démb ñoo xëy dàq ko la ko waral mooy tëj gënu ko tëjoon ak lam fàttali ne loola daa tax kóolute amatuñ ko ci moom Macky Sall moom Le Soleil ne booba jamono ma ngay layal Afrique enquête ne ca Berlin la ko defee discours ba mu yëkkati moom Macky Sall ma nga naan réewi Afrique yi war nañ leen ko yombalal bu nu bëggee lépp koppar sëriñ Maodo Sida Bax ñaari gardien wam ay kopparam lan sàcc yu toll ci fanweeri million ba noppi yóbbu lépp lu fa nekkoon takkaay l'observateur mi nu ko yëgal ne dig teg na leen loxo tegaale loxo ba libération ne ñaari gardien yooya ci gàmmu gi lañu ko lal yéeni kaay bi wëlbatiku ak juróom benn seen desit lanu fekk ca àllub yi ba journal ba ne Abadji ñeenti at la am Seyi Maane juróomi at seen lam yan takkoon ak seen yëre yan sànni ca seen kaw moo tax ñu xàmmee leen bës ba nuy réer journal bi nee na ñaari xale yi boutique lan tàggoo seeni mbokk nag dàquñu ne dañu leen a sàcc yóbbu leen ca àll ba faat leen tax gendarmerie yéenekaay bi ne ubbi na ci enquête yéenekaay bi di enquête di ñu yegal ca booba jamono ne ateb Madiambal Diagne ak Souleymane Teliko juróomi fan weeru février lanu ko jàpp procès ba yéenekaay bi nee mooy ba tey waxtu jotee Sénégal ak Togo stade nee na daanu jongante éliminatoire mondial 2026 journal bi nag ne gaynde yi bu leen may dara épervier yi suqi leen leen ba nu set sunu làmb naan ñu ndamuk Lac 2 bi ci kaw Siteu dey setagut ndax écurie Lansar déposé na recours Lac 2 booba jamono ca l'Observateur néewal sax ndam liñ ko jox ci kaw Siteu ndax nee na juralu ko dara ñu yendoog jàmm Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée. La candidature déclarée de Bassirou

Toutefois, cette candidature du numéro des Patriotes présentement en prison suscite des interrogations et autres divergences d'opinion auprès même des analystes politiques, fait remarquer ce journal qui souligne qu'au-delà de l'adhésion des militants, elle est encore sous la menace de Dame Justice, même si pour l'instant absolument rien ne peut l'empêcher d'être dans la course pour la succession de Macky à la tête de la magistrature suprême. Justement, Besbi un duel des inspecteurs des impôts avant de dévoiler les failles de Bassirou dans le profil qui lui est consacré. Li quotidien aussi consacre sa une à Bassirou Diomaye Faye plan B, mais fait état d'interrogation autour de sa candidature. Équation que résout Mundiaï Sissé, qui affirme dans ce journal que Bassirou est éligible malgré sa détention. Cependant, il ne peut pas être candidat indépendant. Sa candidature doit être portée par un parti politique légalement

candidat à la candidature figure le candidat préféré de Sonko qui s'appelle Gu Marius Sagna selon Direct News. En tout cas, Sonko défait sur le terrain judiciaire a déplacé le combat sur le terrain politique, constate le témoin qui reparle par ailleurs du refus de délivrer des fiches de parrainage à Sonko et titre Si Tiandel Fall avait eu raison. Ce journal note en effet qu'objet d'un lynchage sans précédent suite à son refus de remettre les fiches de parrainage au mandataire du leader de PASTEF, dompteur. Macky Sall lui semble aussi se donner raison dans le traitement de l'affaire Sonko puisque dans Réumi Quotidien, il dit n'avoir aucun regret et promet que ceux qui veulent l'anarchie et le chaos pour assouvir leurs ambitions le trouveront sur leur chemin. Force doit rester à la loi. Plaide ensuite Macky qui sort la sulfateuse estime le peuple quotidien et le même Macky dans Dakar Presse évoque la solitude des moments difficiles durant l'exercice C'est le discours prononcé par Macky Sall à Berlin, au sommet Compact White Africa précisément, qui intéresse et ce journal nous fait part du plaidoyer du président pour un meilleur accès des pays africains au crédit. Le quotidien national Le Soleil en déduit que le président plaide pour le continent. Pendant ce temps, l'observateur semble dévoiler les dessous de la relation tendue Macky Atepa nous apprend par ailleurs un cambriolage spectaculaire au domicile

identifiés grâce à leurs bracelets et leurs habits jetés sur eux. Le jour de leur disparition, les deux enfants se rendaient à la boutique renseigne ce quotidien où leurs proches n'écartent pas la thèse d'un enlèvement suivi de meurtre et une enquête a été ouverte par la gendarmerie selon ce journal qui signale Oustaz Omar Sall en prison. Le prêcheur a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt, un procès en flagrant délit prévu le er décembre en lieu et place été par son employeur, informe plusieurs journaux. Récemment élargie de prison, Falafleur purge une autre peine. En déduit le mandat qui confirme que la militante de PASTEF a été licenciée par son employeur Dakarnave. Et c'est le moment choisi par Source A pour nous raconter le coup de fil salvateur qui a sauvé Amadouba et a fait qu'il a été placé sous contrôle judiciaire après la publication des données médicales d'Ousmane Sonko. Et si on a protesté nationalités françaises et sénégalaises, selon ce quotidien. Le quotidien du Sport Stade s'intéresse aux éliminatoires mondiales précisément à l'affiche Togo-Sénégal prévue à 16h, et Stade invite les Lions à déplumer les éperviers. En attendant, l'écurie Lansar dépose un recours pour contester la défaite de Site, déclaré perdant contre l'AC 2, nous apprend sous l'ombre qui donne le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente